préparation feetu tabaski yi nga xamantene ñu ngi ciy jublu nga xamantene ne desetul lu dul ñetti fan ñu séti yenn tayer yi nga xamantene ñu ngi ñew kenn ci ñoom mu ngi wuyoo ci turu Samba kara Couture mu ngi xamal ne ñew yi mu ngi avancer bu baax baax. tabaski bi yàlla ñu ngi ci di gorlu vraiment tabaski ren bi mo tane yi fa jall parce que fièvre bi jàll la quoi Covid 19 ba moment ñu tollu ba si jall yépp ba ci korité bi jall neexul trop mais bu ren bi machallah bi doxna donte atelier yi tolluwuñu doole am na ñoo xam ne nu mu métti métti ñu ngi liggéey am na ñoo xam tamit bu métti tuuti rek boo fi jaaree da doo fekk kenn ci machine yi kon bu la yàlla dafalee rek li dëkk bi naqaree nu mu métti métti nga toog ci machine yi di liggéey ku nekk ak li nga yor ci machine ku nekk toog ci machine am di liggéey loolu sant yàlla la man pour man bu reen moom moo dàq vraiment Samba Sonin Kara Couture mu ngi xamal ne am na yenn cliente yoo xamante ne am nañ compréhension bu baax a baax ci par rapport liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def. am na ñoo xamante ne ni ñoom vraiment am nañ compréhension après julli bi ñu bëri dañu am ay xew mariage parce que li ci ëpp sax man yére yu may ñaaw moo ci léegi am na ñoo xam ne man maa leen woo sax laaj leen bu dee yére bi doo leen ko sol mën ngeen bàyyi bu julli jëpp passé juste ñu commencé ñaw ko. moo tax am na yu bëri yu nekk fii nii après julli bi lay nekk mais am naa yaakaar trop yu ma fi yor pour julli incha allah dina pare kenn du tardé. kii nag di wuyoo ci turu Ibrahima ñu daal di koy fekk moom tamit ci place am moom li mu gën a spécialisé wu maanaam ay tenue simple. waaw man sama spécialisé mi ngi nekk walo simple waaw ci simple bi laay faral di gën a yëngu ci taille basse yeeg robe yeek waaw marinière yeeg yooyu noonu. comme nañ koy defee saa su nekk feetu tabaski bi ku nekk ak li nga xamante ne moom nga bëgg a ñawlu ñii ay perlage ñi ay daamina ak simple kii nag muy wuyoo ci turu Mariama moom nga xamante ne perlage lay def ñu daal di déglu ci suñu micro. waaw sama spécialité si ñaw bi mooy perlage lay def ak tapis garniture ak yeneen yi daal mhm. des fois client ñëw fekk yërëm bi pareegul il faut mu toog mu xaar la nga eggale li muy li ngay def. maa ngi ciy sant yàlla bu baax waa maa ngi ciy gis sama boobu mhm. bu ñu sukkandikoo ci suñu tailleur yi nga xamante ne ñoom la ñu dékk suñu micro dëkk bi ak lu mu metti métti nit yi ñu ngi waajal tabaski bi bu baax a baax ku nekk nag ak la neex ku nekk ak préférence bi nga am ci yére bi nga xamante ne moom nga bëgg ñu ñawal la ñoom nag ñu ngi jaajëfal li nga xamante ne moom mooy seen client yi bu baax a baax ndax am nañ compréhension ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def.